loolu am na point yoo xam ne c'est rassurant nee na le président sortant il a fait il a organisé une bonne élection ba tey jii li li xew ci benn la ce qui est différent de li ñu amoon comme appréhension ñoom avant ñaareel bi aussi il a appelé les sénégalais a se réconcilier fàtte li nga xam ne xewoon na ñoom bi ñuy nekk dans l'opposition xam nga euh, man dafa am loo xamante ni mënuma ci ànd euh, te loolu ñoom du seen faute sax mm-hmm. y a eu 60 morts dans ce pays là il a oui on s'est réveillé un jour on a voté une loi d'amnistie on a amnistié tout le monde sans pour autant savoir oui oui sans pour autant savoir qui est responsable c'est-à-dire on ne saura jamais qui est responsable mon discours d'hier mooy sama discours tey ku bëgg na ma woo fu fu nous avons un président qui récemment avait été accusé de fait de terrorisme il avait été accusé de de de à la sûreté de l'État. Mmh. Et mis en prison pour Il a été emprisonné pour ça, il était en cours de de de d'instruction judiciaire. Aujourd'hui, il est devenu président de la République. Et s'il était coupable? Mm-hmm. C'est une question qu'on se pose. Vous allez me dire qu'il y a la présomption d'innocence, soit. Et s'il était coupable? moo tax ma ne la il y a des gens qui ont joué avec ce pays là man loolu laa gëm ku mu neex loolu laa gëm ku mu naqari loolu laa gëm Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk jomaay na góor góorlu ba fexe ndiroog sénégalais yi na fexe góor góorlu ba am posture président fu mu dem ñu respecté ñu ndax c'est notre premier ambassadeur fu mu tijji gémmiñam ñu respecté ñu parce que moo ñuy représenté moo ñuy waxal mhm. bu demee Nations Unies Sénégal la ñuy bind ci kanam kenn du bind turam Sénégal la ñuy bind ci kanam nit su fekkee dafa tollu fii danga nga koy wax dëgg te bañ koo wax li ko neex moi je suis pas un béni oui